fu taxaw tey muy public fii ak ci bitim réew yëpp ci nga bokk boo gisee nag man ma wax mbirum écolage bi nga wax léegi naan ndax ku liggéeyul war nañ koo fay d'abord enseignant dafa am contrat enseignant dafa am contrat li tax ñu war koo fay te enseignement dafa arrêté wul contrat bi dafa doon diggante ñun ak parents d'élèves la tëj contrat bi dagg ko nag du ñun du parents d'élèves yi wax naa ko ma ne borom dëkk bi le chef de la nation moo ne nañu tëj bu ne ñu tëj nag te moo ñu ne woon ubbi leen may ñu ñu ubbi ñun privé wu ne tëj leen dañuy tëj ñëpp la laal moo tax ma ne ñun poñe wuñu fu ma mës a waxee dama naan dañu poñe parent d'élève duñ ko njatt ne ko dinga fay waaye parent d'élève dafa doon partenaire yoo xam ne dañu ànd ak ñoom ay ati ati ati at ay millénaire ànd ak ñoom ba fu ñu toll tey di ay partenaires yi démb di partenaires yi tey di partenaires yi suba ndax ka toog ba indi sa doom privé dafa am loo ca gis loo ca namm ba tax nga indi fa sa doom loolu nag bu buñ ko gisee ba nam ko indi ko fa confiance boobu ba léegi am na parents yoo xam ne dara mun leen a tëye. nan ngeen ci fas yéene demee parents yi. fa waxtaan waxtaan rek ngettante amanti fi mu ne école privée yi parents yi dem toog di waxtaan ak chef d'établissement ñu ngay déggoo ñu ngay déggoo di fay am na école yi ñuy fay rang di fay ba ñu ne leen ñi des nañ dellu si suba ñu ñëw fay am na parents yiy fay ndax conscient nañu am na gaa ñuy yàq seen xel ndax ñiy yàq seen xelit yaakaar naa taxul ñu xam fonctionnement privé yaakaar naa xëy na turu milliard dañ ko dul xayma xayma ba mu war a amee ndax milliard bi mu duggee wax naa ko sànq nee leen école bii bi ñu nekk nii taxaw tey <coughs> élève bu nekk ñaar téeméer la ci am ñaar téeméer la ci am ñaar ñetti weer ñetti weer am nañ école boo xam ne muy cours Sainte Marie Anne dinaa ko tudd el école élève bu nekk huit cent francs la ca am ci li jot dugg ci milliard bi cent francs boo ko nee 2 milliards te nga multiplier par 3 muy 2400 pour 3 mois xam nga loolu ku toog ne parents d'élèves bu ñu fay ndax président joxe na un milliard joxe waat 2 milliards tëdd leen nelaw kooku yaa ngi tas suñu école yaa ngi yàq liggéey moo tax tey ñu ne éclairage opinion moo ñu tax a jàngale jàngalekat yi nag ñu ngi jàngale ba mu neexee di jàngale ba mu naqaree waaye nañu xamal xamal ñëpp li ñuy xamal ñëpp mooy saako bu yebul dara du taxaw munu ñoo ne jàngalekat di nga dem jàngale te amul salaire bu amul salaire du jàngale te bu jàngalewul école tëj te yaakaar na kenn yaakaarul ñaanul école tëj école privée tëj ndax école privée état ci boppam bu ne woon day tëj sax moo ciy jàpp ne du ngeen tëj ndax état xam na lu ko école privée di jëriñ xam na résultat yi école privée indi di yokk résultat au niveau national kon nag am na fi njëriñ am na fi njëriñ parents d'élèves yi am na ñu leen di dugal seen bopp ndax escroquerie lu nekk man dama ne loolu yàq der ak yàq xel ak mauvaise foi ni ma ko tàmmee wax mauvaise foi la te dina ko wax ci kaw dafa metti nit ki di daj limuy muy daj di muñ ci biir kërëm privé suñu patron yi wax nañ ko kenn musu leena a dégg xanaa ñun ñu suñu làmmeñ ñaw ñuy syndicaliste ñoy wax wa ñom kenn musu leen dégg buñu waxé tay nak dañoo seuss dañoo seuss dañoo sonn